sa xarit daal ah, Racine moo jënd télé bi. bii moom ah, mën nga ci yi ah, naa gis ngeen loolu. sama xarit la doon la. tey waaye ñu fekk fi Bougazelli li mu député. honorable yow sama wet ngay toog. honorable dama ko tey. ndax xam naa ni fekkee cër la. dëgg la tey it man dama ni Sénégal des fois nañuy xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. dëgg la des fois nañuy xam ni réew mi ñoo ko bokk. Mm-hmm. des fois nga dégg nit jàpp góor tuumaal ko. des fois nga gis nit xas ko ko tamit des fois nga gis nit xas ku ko mm-hmm. kër man su ma sañoon Sénégal day rafet. Hmm. day am taarix boo xam ne boo xoolee sa morom. Hmm. gis sa bopp ci moom. Ah. dama doon seetaan archive temps est passé. ma hmm. gis ay drapeaux yu ñu ko tuddee woon. ak ay drapeaux yoo xam ne moom la ñëwoon représenté président Macky Sall. mais dama lay yëgal ne ñaar man sama xarit la. Mm-hmm. est que xam nga ni damay dem làmb ay Thiès ak yu ñu yëpp dañuy ànd. Mm-hmm. bu ñëwee day làqatu rek dugg ci kaw tribune bi toog seetaan. bien suma xarit la. Mm-hmm. fekk bi nga ko fekk nii. du hasard démb ba minuit mi ngi fii sama kër gi naan ataay di jaar maa sama xarit la suma lépp la. yàlla yàlla xam na ni nit ku baax la. Mm-hmm. ay valeur la am. Mm-hmm. té l'honorable député a un passeport diplomatique ñu bari ñuko mom mm-hmm. suñu biir suñu ci Sénégal. boko ko nak dinañ ko jox né ko Global télévision <laughs> sa la. Euh, euh, fay. fay. di Samba. lay nit ku bax la. may wax na nitu aljana la ndax mom xamul lu bon. Euh, Lamine lu bax rek la xam. foo ko fekk it lu baax lay wax. Mhm. waaw man yàlla defal def sax euh, samay fréquentation bariwul waaye moom. Mhm. Euh, tout le temps la ñuy nekk. Mhm. li ñu ko woon gëj a diir bu gàtt. Euh, espace bu mooy mooy ma tukkee fan yii. waaye maa koy ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat. te télé bi yàlla def ko ci télé yi gën a rëy si télé yi. min waaw Racine moom nit ku baax la. xam naa ko bu baax nit ku baax la. Mm-hmm. te eh, fonk doomu aadama la. Mm-hmm. maa ngi ñaan taxawaayam yàlla na gën a yaatu. waaw émission bi nag comme ni mu ko waxee fekkee ma ci boole ma ciy profité. Mm-hmm. di gërëm Gaston Mbengue. te di ko ñaanal. yàlla fëgg boppam. nit ku dëggoo ngoog. jullit àqana ngoog. nit ku baax a ngoog. Um, dama naan patrimoine Sénégal la. ndax wax dëgg yàlla eh, Gaston foo ko fekk rek luy doxal làmb lay dox. kon donc maa ngi ñaan yàlla yàlla yëkkati ko te e, fëgg boppam ba mu delluwaat ci ay activité ndax nit ku baax la mhm. euh, ci profito yi di ñaanal Aziz Ndiaye mhm. Aziz Ale Ndiaye doomu mhm. Géejawaay la euh, euh, moo ko rakk ji Baye Baye ñoom it wax dëgg yàlla ay ay doomu Géejawaay lañu te

ndax liggéey na ci réew mi loo xamee ni kenn dootu ko fàtte ba àdduna tukki mhm. man dem naa ba mënatuma ko xool ci télé bi mhm. eh, ndax am na ci loo xamee ni sax mérité wu ko mhm. moom li mu mérité mooy tey ñëpp jóg sargal ko ndax fi mu fekk réew mi ak fi mu ko indi ki am problème mooy ki koy remplacer kooku am problème yow ñoo bokk wax kookooy ah. kookoy am problème parce que secteur boo xool rek président Macky Sall fekk na ko fa mu nekkoon yóbbu doublé ko liggéey na si réew mi boo xam ne foo génn rek xar Sénégal dama dem bitim réew fan yee passé ñuy waxtaan mais am na si Sénégal yoo xam ne bu ma leen wanee géejawaay dañ ne non fi du géejawaay. dëgg la dëgg la. kon donc kooku mënuñu ko lu dul di ko ñaanal yàlla. Mm. yàlla sàmm ko. tey ba fii may wax ak yow. Hmm. réew yu ma ne si xolam te nitu jàmm la. Hmm. jàmm jooju mu woote nag. Hmm. ñaan Sénégal yëpp fekk fekk fekk si ko ci. honorable am nañ mbégte ci yow. di kontaan ci yow di wax ni nit ku baax nga nit ku yàgg taxawu géejawaay nga. loolu dafa nee naa nit dina am woy ci dëkk moo koy may boppam. bu njëkk boo nee Mbaye Sakk xel fu muy dem. boo nee Youssou Ndour xel fu muy dem. boo nee Bougazelli xel dem ci géejawaay. loolu nag ñu ngi la ciy sant di ci gërëm ñun lu rafet rek lañ mën di wax. man dama naan ñun dañoo dañoo position bi ñu nekk la Lamine ñun dafa metti ñun bu bonee sax moom ñu wax lu bon. <laughs> asalaamaaleykum Lamine lay tàggatoo. waaw di la di la ziar di ko di ko delloowaat. yaakaar naa lii lii doon na doy waar naa. mais maanaam lu nekk la cee am rek moo ca war a moo tax li ma lay expliquer dama la mm. kii. yàlla baax na daal nañ dem ba ci kanam incha allah nañ ko yemale foofu rek incha allah may may may ma ak lamb ji loo ciy waxaat looy tàggatoo waaw mais xam nga moom lamb ji moom mm-hmm. coow li daa bari waaye bu dee bu dee euh, la part du lion moom Futurs Médias jël na ko ah waaw mais xanaa nga ñëw këf mais gëm naa nag dafa am loo wax sànq bi ngay commencé. ma ne la yéen ñi loo wax. sarax ndongo waaye bu tuddee doole. non dama ne lamb yi si bëri. xanaa ngeen ñëw këf ci ñun. ah non sañ ngeen ko nag de. parce que matériel yi ma gis ngeen yor ko. ah non position gis ngeen yor ko nii. Ah. xanaa ngeen nangu Baye Ndiaye ci ñun. mais xam nga nu ngeen di def. Ah. da ngeen nangu Baye Ndiaye nangu makkat. <laughs> xoolal comme ci weeru koor. lamb yi deux <laughs> li mooy Sénégal la mooy Kaffrine hmm. yéenante jàmm. mooy bañ a bàyyi nee naa la Sénégal ñun munuñoo fal munuñoo folli. Mhm. dañu am problème mu fal. ak fol dañu am problème mu fol. jërëjëf nañu moytu ôte ak que je me mette. na fi jógee rek ñëw baax na nañ ko mhm. moytu. ak loo may digal loo may digal loo may ñaax gën a góorgóorlu. Mhm. ndax expérience baa ngi ñëw ñaar fukki at. am nga ko daanaka expérience. fu nekk jaar nga fa. yaatalal ñëpp déglul ñëpp. waxal ak ñëpp waaye bul waxtaan ak ñëpp. Hmm. bul olof laa la làkk. ak ah, ma laa dégg. déglul ñëpp. doy bul gën yaatalal ñëpp. Mhm. waxal ak ñëpp. waaye bul waxtaan ak ñëpp. biir li nga yor nii ñëpp a ko bëgg. yow la ko yàlla jagle yàlla na la jig waaye li ma ci gën a kontaan mooy professionnel nga li ma ci gën a kontaan mooy koo dem fëgg buntam mu um, dina la ubbil. Mhm. ndax sa yar. ndax sa teggin ndax sa sutura ndax sa professionnalisme. au vrai sens du mot ñett yi may lim. li ngeen dama dama ne bay dem kër Bécaye. waaw. <laughs> dañu mbaay booy te dimbali ma nga teel maa yee. waaw ñëw xam ne keroog fa ñu dëkkee. comme ni ma ne. Mhm. ñett duma ko ci yow. Mhm. duma sa fans. Mhm. duma ma sa morom. bëgguma sa place bi nga toog ma toog fa. mais dama la ne ñoom ñii moom tele bi xam nañ ni fi ñu wokk foofu xasan. xam nañ ni lépp lu ñu bëgg ci làmb buur géwél dina ko indi kon amal wér gi yaram amal sutura maa ngi ñaanal sa technicien yi. Mhm. sa caméraman yi. Serigne Serigne maa ngi lay ziare. di kontaan ci yéen junior kontaan naa ci yéen. Balla chauffeur bi Balla ñu ngi lay mooy logistique lañ koy tuddee. waaw ah, logistique Balla ñu ngi lay gërëm di la sant. Mhm. di ñaan yàlla defal leen jàmm. di wax ni man foo ma woo dinaa la wuyu. même bu ma nekkee bitim réew. Mhm. jaral nga ma ma dagg billet ñëw. Mhm. ndax xale bu baax. nañu yàlla la yàlla sutura nañu xaar inauguration. inauguration bi xoola costume bu baax laay sol ñëw. Bécaye eh, taxawee gauche Bécaye taxawee droite ma taxawee euh, gauche maag Bougazelli. Bougazelli jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yaakaar naa ni tey am nañu mbégte. am nañu mbégte fekk suñu mag. am nañu mbégte fekk suñu xarit sànq maa koy wax ma leen nit bala koo xam ngeen ànd tukki ah mais nit ku baax. nekk la koo xamante ni ñu yàgg nekk ci milieu làmb ji mais mu am fullaam am faydaam fu mu àgg man bi ma koy xam du du du du noonu noonu TFM Oxygène la dañoo mos a ñëw Oxygène di def émi di def émission ma ànd ak ay promoteur bu ñu wax Malick Dieng mu gën a mu gën a nekk maire jàmm sama xarit la bi ma ñëwee nga ne ma non buur waaw nga ne ma vraiment foog ngeen dem fay cinq mille francs fële ci technique ngeen mën a toog ak moom parce que télé bi rajo bi amul dara ndeysaan loolu su ma la xoolee damay xam ni jom rek moo la egsi moo la nga yor sa scooter ba fekke na fekke naa de hmm? euh, gars yi ne nañ daal naa ko yamale foofu ndax xam ne nee nañ tey moom li duuf ci kat ndax li xaju ci mais reer bi neex na macha allah si jàll sponsor indil nañ ko tey ci Leewtoo ci guddi gi ñu toog fas yéene leen a bégal yàlla na yàlla suñu borom doole jàmm ak salaam lépp loo xam ne sàkku nañ ko ci réew mi ci jàmm yàlla na fa yàlla indi tasaale ko ci biir askanu Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu